asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk o tur ak sa sant man maa ngi tudd Fatou Seye Sarr euh, PDG restaurant au choix Mako suis tijji euh, jeudi 16 mars fini ci Mbambara tout juste ci station Total Total bi foofu du ko restaurant bu donc genre comme nous ko les restaurant la fast food glacier Euh, cafétéria la salon de thé la pizzeria donc comme nu ko tur wuyo wuyoo rek au choix donc ku fi ñëw rek am nga say choix donc à vous de faire à vous choix donc donc loolu sant yàlla la sant yàlla la ndax euh, liggéey bi avant ma ko doon def samay parent laa jëkk demande seen aval laaj leen liggéey bi kat day demande ay wàccu gudd est-ce que mën naa ko d'accord ñu ne ma waaw amul benn problème te suñu waxoon déet tamit duma ko mës a d'accord bien vrai que man maa bëgg liggéey maa jàng ba donc suñu ma waxoon déet tamit damay beneen liggéey donc amuñu si benn problème ndax maa ngi woon Kajoor Glace doon liggéey foofu du wàcc nag heure bu nekk mën naa wàcc vingt heures mën naa wàcc zéro heure mën naa wàcc ba quatre heures du matin donc amu si benn problème dañ ma doon bàyyi may liggéey di wàcc mante tamit amu ci woon benn souci mu nekkoon amour ci ci man donc amu ci woon benn problème donc nous, nous le président directeur général Kadior Glace muy Abdoulaye Mbow le directeur général de nous. Nous nous fay rawatina ki di Pambaw comme nous, ko ba façon heure bu nek wacc nak kadior Glace zéro heure mo xam quatre heures du matin deux ans yu cheminé kadior Glace kenn xamonte entre employé la ak employé donc mënoon na xool ni Mama Sarr sama employé la donc nay jël ay taxi wala jakarta comme moroomam heure bu ma wàcc Pape Mbaw yóbbu na ma këram soxnaam nekk en état Pape Mbaw di ma yóbbu soxnaam am doom Pape di ma yóbbu donc di ko sant mom moma gëna dolel moma gëna yokku fit tamit ba ma donc diko sante bu baax a baax amu ci woon benn jafe-jafe mu sa may collègues yu nekkon Kajoor Glace ñom tamit bëgg ma yërëm ma inauguration bi ñu ngi fi gis ci cuisine bi ñu nga gis ci glacier bi ñom ñep wa Kajoor Glace pas difficile du tout donc comme li ma wax ah, je vais vous dire une chose man jàng naa ba am sama maîtrise am naa sama master en sociologie je suis spécialisée en migration santé et développement donc lu ma jàng ak lu ma tëjji c'est diamétralement opposé lu ma leen donc affaire lu jëm ci affaire lekk moo xam ci restauration moo xam ci cuisine lu mu mën doon amul la ci man donc samay ñu ma dëkkaloon ak ngee ñu ma dëkkaloon ak Ziguinchor suñu waa kër mën nañ jël loolu comme seede dama bëgg ay affaire toog dama bëgg di créer donc te man je savais que man ci affaire yi laay mujj donc Kajoor Glace ba fa doon liggéey li tax aw ma coono lool parce que amul woon ci man ndax ñu naan li nga bëgg rek dañ ci rey sa bopp dañ nga góor góorgóorlu même bu fekkee daa am ay coono sax doo sentu coono parce que amour nga koy defee amul laa ko doon defee lii tam ba ma koy tijji amul laa ko defee tamit di ci sant yàlla bu baax ci satisfaction bu rëy ndax comme li ma la wax gis naa ay nit yuy tëral ay projet pendant des années et des années te amaana du aboutir amaana na aboutir na man sama projet bi muy au choix mooy tur bërëb bi ci un mois laa ko tëralee donc maa ngi ci sant yàlla bu baax di sante bu yalla bu baax un mois la tëralee lii nii té comme ni ma wax gis na ci ño xam def nañ ci ay année ta taxul mu dem wala dem na donc maa ngi sante yalla bu baax a baax baax au choix comme ni ma ko waxé dès le départ que ni ben ben service la bo xamné ba ay service sa lay wax parce que amna glacier amna fast food amna cafeteria cafétéria salon de thé pizzeria crêperie euh, amna na loolu man sama sama sama philosophie concurrence bokku ci wala sama dictionnaire mo concurrence bokku ci donc du lu may sonal kenn su ñewon tijji fi sama wet wet duma def dara da comme li la ku nek wërsëgam lay lek ku nek wërsëgam lay nek donc duma def dara man liw ma pour ay faire concurrence comme li len wax amour la ci man amour la ko def sama spécialisation wax naa ko migration santé et développement master en sociologie maa ngi jóge ci lolu ñu ci restaurant donc lolu amour la ñëw ma pour ay concurrence ak kenn kenn non non lolu du du du diw ma vision comme euh, amna ay société multi bah je veux dire d'abord multinationale lolu lay ñaan yalla au choix nek dans les 14 régions du Sénégal lolu lay ñaan yalla té yalla nako yalla def donc aussi tamit jàppale ci euh, kii nu mu tudd ça euh, l'emploi des jeunes parce que soo nee entreprise lu bon bon bon bon bon di nga employé deux personnes donc deux personnes ngay employé tamit yaa ngi jàppale ci euh, emploi des jeunes donc maa ngi ñaan yàlla mu doon entreprise bu ngan ngan boo xam ne fépp lañ koy tudd. Si je faatu ñant employé yor est-ce que duma o sama gestionnaire mu wax lima employé tax day bari ba may lool may ma ngi ñaan au choix mo ngi tiji 8h ba 1h du matin les jours ouvrables le week-end 8h ba 2h du matin Inch'Allah, parce que day am employé. day agn am day am agn day am rer donc yoy yep lañu lay suñu yalla ñoom laay ñaax bu baax a baax a baax ñu dugg ci entrepreneuriat bañ naan jàng naa ba am sama diplôme donc ci lii laa war a liggéeyee déedéet loo gis ci loo xam ne yaakaar na soo fi duggee da nga ci am réussite nekk ci te lépp looy def tamit def ko ak amour bul ci xool dara ndax soo defee dara amour doo xool ay fayt ay échec ndax dangay ngay jugaat ndax amur nga ko defee te doo ci am lu la métti lu baax donc maa ngi ñaax sa mbokk jigéen yëpp ñu ngi ku nekk bañ di xaar dara daray góor nañ jéem a jug ñafe seen bopp amal dara seen bopp donc loolu daal laay wax sama mbokku jigéen nañ dugg ci entrepreneuriat bañ naan jàng naa ba lii di xep yenn métier mënumaa def lii wa kenn xam non nañ jug dem lu ñu naan petit à petit l'oiseau fait son nid Kajo laa jaaree nekkoon fa employé léegi maa ngi sama restaurant nekk fi